asalaamaaleykum internautes yi nuyu nañ leen ziar leen di wax képp kuy gan ci page bi te abonné go ñoo ngi leen ñaan nga abonné te bés kolos bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ñi koy njëkk a gis leen wax ngeen wéy di liker te di commenter te di partager lu ci am solo la xibaar yi tàmbale ko ak Bamba Dieng moom nag réintégré waan na groupe bu Marseille bi tey jii. Qui s'est jongante ak ren beaucoup na ci groupe Marseille bi en tout cas mom Bamba Dieng gannaaw bi mu dundé mercato bo xamante bu compliqué la euh, coach bi di Igor Tidor wan ko et tout ça euh, aujourd'hui euh, euh, intégré waat na groupe Marseille bi nga xamantene ñom ñoy football contre Rennes fofé ci Ligue 1 bu France bu 13h00 euh, jotee en tout cas Bamba Dieng tey jii c'est à lui de montrer que né euh, limu capable def ta ndax ci un jour bo xamantene amna mentalité bu exceptionnelle bu nekk. en tout cas mom Bamba Dieng maye nañ ko sens am te na sens ngir jouer ki nga xamantene moy mooy idolam muy Alexis Sanchez. Lamine Diadio mu ngi noonu comme niñ leen ko waxé won woon nañ ko ci équipe 20 3 23 bu Gambie équipe locale bu Sénégal aujourd'hui moom euh, tan na ngir jouer ci équipe nationale bu Gambie waxon nañ ko kon maintenant c'est officiel mom Lamine euh, le meilleur joueur du championnat sénégalais qui a admis une génn joueur casse Sport joueur bi nga il est ans bu pour ñëpp bëgg. Euh, mbuju la tànn équipe bobu di Gambie en tout cas dina jouer ci ci sen match yi nga xamantene war nañ ko amal ci diggante ñoom ak Burkina Faso i 23 donc kon dañ koy wax bonne chance rek ndax té Gambie ak Sénégal ben lañ té ci seen jour bo xamantene il est tellement talentueux am nañ espoir ci mom kon euh, Lamine Diar yalla ko yalla defal jamm rek mu woné fulla ak fayda ci équipe bu Gambie bi inshallah kii di Samba Diallo moom nekk ca Dinamo Kiev korsam ba nekk ca Dinamo Kiev nekk ca U19 ya dafa yëmu ci moom ndax lan ndax talent bi nekk ci moom parce que moom actuellement mu ngi réclamer sax ngir ñu woo Samba Diallo ca équipe première bu Dinamo Kiev ndaxte Samba Diallo c'est un joueur talentueux un joueur boo xamante ne il est brillant il est nee na ndaxte te aussi am nay qualité nécessaire yo xamantene man na jox benen xar kanam équipe bobu di Dynamo kef en tout cas ki nga xamantene moy Samba Diallo gaay war nañ ko bàyyi xel ndax c' son espoir c'est un joueur bo xamantene avenir la ci équipe nationale bu Sénégal récemment gis nañ ko ci dernier tournoi UEFA A yi ñuko don doon amale fële ca Mauritanie mu raflé trophée ñu fa don joxe yépp muy meilleur buteur meilleur joueur également ñu jël li nga xamantene moy coupe bi andi ko fi ci Sénégal en tout cas mom euh, Samba Diallo war nañ ko bàyyi xel c'est un c' un gars bo xamantene ne actuellement actuellement football am na ci moom yaakaar gars yi li mu nekkoon vidéo bi di wax képp kuy gan ci page bi te abonné goo ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bés cloche bi ndax lu ñu dugal rek bokk ci ñu koy njëkk gis jaa ngeen